au nom de ce combat-là ñu permettre un un un un avocat comme Juan Branco mu ñëw di désacraliser nos institutions. di ñu saaga ci suñu réew. mais mais j'ai un problème. et tu n'en veux pas ton ah? ministre. Ah? tu n'en veux pas ton ministre. koo xam ne moom moo dox ba ñu yëpp Sénégal ça ça te gêne pas. man mu def ay ay ay décisions am une un comportement inélégant anti-républicain. di doxal simplement. intérêt non non non c'est important ce que je dis parce que quand tu condamnes Juan Branco je dis ok nous sommes tous euh, fiers d'être sénégalais mais je dis man bëgguma ànd ak kenn koo xam ne da nga may yeblu mais quand il y des décisions yoo xam ne comme par exemple yi xew nii yow di nga nangu fële euh, euh, l'affaire de l'arche de de de de. de Noé de de de Noé de Closé ou fële Tchad. waaw l'arche de Noé. mooy ñi ñi ñi jëloon xale yi. Euh, doon leen doon ba ñame naa te Tchad waaw Tchad dafa amoon fulla ak fayda bi ñu jàppee ni kii crime la la ñu def mooy jugé leen sur place c'était pourtant des Français mais yow nga jël crime bu day nii nga ne crime bi dafa garaaw pour moins que ça nga jël ñenn ñi nga tëj leen kaso nga ne ni kii tubaab la kii du dara euh, lu tuuti la mu ñëw dafa ma yàpp nga téye ko munoo ko munoo ko jugé munoo ko teg ay daan nga bàyyi ko mu génnaat may mun a waxal ci loolu kon kooku su taxawee yépp ma demaat France waxaat mais kan moo ma tooñ. alors de tontul kan moo ma tooñ. Juan Branco kon moo ma tooñ may mun a. il faut tirer les responsabilités. là <laughs> euh, là ça commence plus juste. waaw il faut il xam nga plus juste. xam nga ki dem jëli Juan Branco. moo njëkk a yablu avocat sénégalais yi. ah non s'il te plaît s'il te plaît non may ma rek xanaa Alpha Condé bi mu jëlee bi mu jëlee fii Aïssata Tall Sall pour mu nekk avocat Guinée à l'époque euh, lan la Aïssata elle est africaine. ah non non non non ah non moi j'ai dépassé ça ah non non non ah non moi je pas ces termes euh, moi je suis dans un monde globalisé je réfléchis en termes de compétences euh, que je peux avoir ici au Sénégal en Afrique que je peux aller chercher aux États-Unis ah non ah non s'il te plaît constitué de ténor du barreau sénégalais. non non non non bu boole ils sont à l'aise non non 19 ans euh, amul benn oh, expérience bi c'est un activiste qui écrit des livres sur comment perpétrer une une une révolution xaaral rek ma ma ma ñëw nga ko alors ñu ne état du Sénégal nag tamit respecté wul boppam ñu ne dañoo délivrer mandat d'arrêt le GUS il vient au Sénégal il participe pendant 20 minutes à une conférence de presse mënuñu ko jàpp il disparaît dans la nature il fait des apparitions à Pikine et et dans d'autres lieux il fait des vidéos mënuñu ko jàpp ñu ne ñu ñu ne dikk mu ngi koy wër. est-ce xam nga li tax ma wax la ko. ñu ne dikk mu ngi koy wër moi ko woon jàpp. du loolu sax c'est que dañu sóob. na mandat d'arrêt mais amul mandat d'arrêt parce que. naka la Ismaïla aujourd'hui il a montré le mandat d'arrêt. après coup. waaw peut que dañ ko peut que dañ ko antédaté. après après coup après coup. après que parce que nag nga mën a am mandat d'arrêt ah. international. mu jaar gaa ki a jaar ñëw dugg hôtel génn ah. et cetera li tax teewuñu ko simplement parce que amuloon mandat ah. d'arrêt et aujourd'hui j'ai entendu sa communication dina effectivement il y a un mandat d'arrêt et cetera mais c'est après coup donc en réalité. mu dem et puis l'autre chose qui fait mal euh, euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi teg sa loxo ci problème yi yoo xam ne la parole publique dafa dévalué dafa dévalué wu et après c'est trop facile pour dire ouais Juan Branco etc on n'a pas de problème avec Juan Branco un état reste fort et un état fort c'est pas doole c'est pas tëj prison mooy di wax dëgg sa bopp nga gëm ni lii loi la lii droit la et que tu sois le premier à le respecter mais quand le le, le ton citoyen ton concitoyen ses droits ne sont même pas respectés noo bëggee les les plus jeunes les plus petits les plus uni les les les universitaires koo xam ne sax jàngul mi ngi gis ni en fait mu ngi jalgati droit yoo xam ni moom mooy droit wu citoyen bi mais comment veux-tu ban ban ban moyen ngay am en fait pour exprimer sa frustration ak sa colère.